Soxna Aïda Diallo ay Samba booy ñoo ko seet si ci fan yi ñu génn ñii ni cambriolage la ñële ni tentative d'assassinat. assassinat lii nag la ñu naan bu ñii di gàmm ñii di ras dem veyu gàmm ci 4 heures du matin la ay Samba def effraction ci biir këru veuve Cheikh Béthio bi un véritable coup de maître nak, heureusement ba lu a maîtriser la. ay 4 heures du matin lañ toog ci biir manak, man ak sama benn mbokk bi immédiatement ñu gis ñaar ñaari nit ñu tëb yor benn fusil def cagoule yu noir sol genre trait bu vert ne ñun c'est la police. leneen la police ñu ne leen lu ngeen fiy def léegi lu ñuy waxee noonu rek ñoo ngi gis ñeneen ñu bëri di progresser ñoo ngi wàcc di wàcc en masse. c'est la commencé takk jël sama bopp bi dugal ko ci fleur ba pare ne ma dëppul maanaam bul xool. ani soxna ay ma ne ko neewu fi ani soxna Aida ma ne ko neewu fi ani borom kër gi soxna Aida mu ñu fi ma ne ko neewu fi génn leen neewul fii. j'ai compté plus de dama estimé 15 rek mais mun na gëm ni ëpp nako gendarmerie nga xamanteni ni saisiroon nañ leen ci mbir bi ba ñu def ab interpellation relâché wat nañu seen suspect selon information yi ndax japp nañu ni ki ñu jotoon tek loxo andul ak xélam té sax mbir yi cambriolage la rek bu foiré. nak la waa kër soxna ay yi di baña a dégg de ndax ñom mi teewoon ci barab ba andu ñu benn yoon ci bobu tees ndax yaakaar nañu ni yoyu Samba Boy procédé wuñu won sax comme ñuy cambriolé xana kay leneen mo leen indi won lañu japp ce n'est pas un cambriolage parce que ku ñëw di cambriolé mais war nga am un fo xamné ne contenant la pour def li ngay cambriolé gisuma ko yor sac gisuma ko yor lo xamné c'est un grand sachet ndax bo duggé di nga jël lu ngay jël di nga am foo ko gisuma auto bu fi démarré dégguma benn bruit oto bu démarré dégguma portière dégguma dara waaye ku ñëw yor ay loo xamante ni lii c'est spécialement lu mën a rey nit man sama portable dañ ko fiyatee jël ko ma fa ne yóbbu nañ ko ma fekk ko ci biir ndoxu tortue yi dañ koo xooj keneen ki dañoo ñëw dóor ko ay coup de machette portable tas waaw maanaam communication du am. ak lu ci mënti am ñoom li ñu xamle mooy Dame bi nekkul en sécurité ndax ginnaaw 2019 ba léegi bëri na ay menaces yu mu jot de tout bord nag ñu yaakaar ni acharnement gratuit la. soxna Aida nag ba fi nekk ak léegi acharnement yi mi ngi continuer mhm. ñu ngi koy saaga di ko wax lu ne léegi nag bàyyi nañ saaga yi ñu ngi koy jéem a faagaagal. kon ñu ngi continuer ba léegi bàyyi nañ wax ji nag léegi nag jël bakkanam ci lañ taxaw te ci nguur lañu ne état fi ne état moo am droit protéger les citoyens kon dañ koo war a protéger si fànn yëpp kon nag wax jàngoog lu ëpp nag tuuru waaw lu ëpp tuuru ñoom nag ñu ngi alerté di woowaat état mu jël ay responsabilité ci mbir yu ni mel balaa muy dégénérer man état laay interpellé parce que xam nga lu tax ak ministre de l' intérieur entre monsieur Antoine Félix état moo war a yor sécurité sénégalaise. yi. nañu wax ci lii balaa muy dégénérer. am na loo xam ne duñ ko nangu te duñ ko seetaan jaral nañu lépp jaral nañu suñu bakkan jaral nañu lépp. d'ailleurs seen avocat de la défense bi di maître Khoureyssi Ba génnee na ab note di dànkaafu di xam ne bu justice àttewul convenablement beneen yoon mën naa ëpp loxo.

avons you ak mom ci doxalinam tax muy recevoir ay menaces de tous bords et pourtant dégg mu répondre à ses détracteurs dafa silence bi taxul fay waye xana nak ñak déggo ak mom warul tax ñu sa sécurité ci état de droit la ñu admettons que li xew Mbour ci un simple cambriolage foiré comme ni ko avons ñi un c'est pas autant mu un fait anodin lu normal assez war ci génn indemne d'autant plus que ñeneen ni ñu ngi plus loin ni menaces yi ñu proférer à son endroit la ñu pour mettre en en exécution dans les deux cas nak, on espère que yoon dina tirer yëf au clair ngir mu baña a jur ay fayanto. Li lañ leen indiloon ci xibaaru bis bi fi ci Totem way leen rek di ñu suivre ci suñu ay chaîne YouTube Instagram Facebook ak Twitter ci Totem Actu waaye tam ci suñu site internet www.totemactu.com